bismillaahi rahmaani rahiim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala muhammadin rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi الطيبين الطاهرين mbokk yi fi daje assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngeen may ñu déglu tuuti kilifa gu tedd gi a sayid Cheikh Ahmed Tijani ci bis bu tedd bi ak ci barke ñi nga am dañu ñu wër la sa turandoo sayid Cheikh Ahmed Tijani ak Cheikh El Hadj Omar El Fouti ak Cheikh El Hadj Malick ak sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhum bala ñu lay nuyu ñu ñaanal la ci seen leer ak ci seen barke ñoom ñépp kenn ku ne li nga dese woon ci fan yal na ko yàlla boole jox la nga mottali ko lépp lu ñu bëggoon yeggale ci seen mission te jamono ñëw ñu dem ca seen borom yal na la yàlla defal tawfiq nga mottali leen ko lu nit di wax amatul parce que bëgg doy na bëgg fii waxuma la nit ñi waaye garab gi suuf si yépp tey am na lu ñu yëg ndax bu ci ne am na ruux te ruux bu ak la muy dunde wa shamsu wal wa gayruhu wal ardu wal mirriixu wal ajraamu tati li ayni muraqibin min nadratin fa kama qtadaahu riayatun wa li ñëpp di yëg moom la ñuy yëg kon yal na la yàlla fay yal nañu yàlla defal sutura foo nekk rekk ñu nekk faat yow ila yawmil qiyaama ñu ngi nuyu itam kilifa diine yu tedd yi fi ñëw ay kilifa yu mag yabal leen fi sëriñ Pam Malick moom lay cëram mu nuyu leen ci turu kilifa gi kilifa politique yi fi ñëw walla ñu yabale fi moom it bu jógee dana leen tudd ci turu kilifa gi bala ñuy jox sëriñ Mansour mu sànni ci ay kàddu jox sunu wëy juru bopp mu waxal ñépp li ñu bëggoon a wax ñu jox kilifa gu tedd gi tabaarakallahu li mu ñoo sànni ñu taataan ko te yàlla nañu ko jariñoo mu mel ni moom bii nag Sayid Cheikh def leen junjoon ci waxtaan wax ni fatxu makka keroog bi yonent bi ñëwee sallallahu alayhi wa di daaneel xërëm yi ca kaaba ga waxul ni maa ngee daaneel laata wala maa ngee daaneel al uzza wala waxul ni maa ngee daaneel manaat nee na dafay wax rekk bu muy daaneel ni qul jaa al xaq wa zahaqa al baatil waaw mu mel ni dëgg boobu nag moo ko tax a toog fii tey dëgg nag dafa di alalu yàlla foo ko bëgg wéer te du yàlla bu yàggee nga gis ca lu la neexul boo ko wéeree ci bokk bu yàlla lalul mbokk ga bés dana ñëw lu la neexul feeñ ca mbokk ma kon nag yaa bunay laa taqsus ruyaaka ala ixwati fa yakiidu laka kaydan ndax inna cheytaana lil insaani aduwu mubin kon mbokk mënul téye dëgg mbokk dëgg it kenn du ko wéer ci xarit ndax boo ko wéeree ci xarit te yàlla lalul xarit ga bu yàggee danañu jaar ca xarit ga ba gaañ la taxoon moom mu wax ni ixdar aduwaka marratan waxdar sadiqaka alfu marra dëgg kenn du ko wér ci taalibe dëgg miin na pas-pas waaye miinul taalibe moo tax taalibe boo am lanteel te pas-pas lalu ko bés dana ñëw mu jëndalaat ku ko jarul wa ida laqu alladina amanu qaalu amanna wa ida xalaw ila shayatinihim qaalu inna maakum innama naxnu mustahziun allahu yastahziu bihim wa yamudduhum fi tuxyaanihim yaamahuun ba ca des am na ñett yu dëgg dul nangu bu jëkk bi mooy lu ñu la mën a sidd yàlla nay cër yàlla nay xam-xam yàlla nay alal bu àdduna neex mukk ba sa xel dal parce que bokk na ci charte tariqa cheikh waxuma charte jël werde bi mais ci charte tariqa bi bokk na ci adamul amni min makrillah ndax fala yamanu makra allah illa al qawmu alxaasiruun kon nag loo mën a am bu ko àdduna neexi mukk ba sa xel dal mu dellu ci la sëriñ Babacar si bii daan wax ni weeru koor la teeg dantu sowul juubu weesuwul waaye ma wax ni bari na ku juubu fekk sa xel daf caa nekkoon waaye bu ca sa xel nekkul yàlla mën na la suturaal bi dëgg dul nangu yit mooy cër ñu séddee ko ci njort njort du séddee cër ndax laata Seyid Cheikh turandoom di ñëw boroom cër bu ñépp xam ci wàllu yàlla mooy ibnul arabi alxaatimi ci njort mu defa ni xatmiya ci loxoom la ne ba mu juum wax ko ni bina xatama alwilaayata fantahat ilayna fala xatmun yakunu laha baadi waaye ba mu ko waxee ba noppi lu dul nit moo ko tontu ni ko laysa laka ma zanant wa tamannayt waaw yëfu jaamur la wa innama huwa li waliyin fi axiri zaman tudduñu ko nag waaye am na ñu jëli waaw wal gawsu والبرزخ المكتوم علي أقطى بالإله بلا ريب وتبيين neex na sax moom sëñ Babacar neex na sax waaye am na bu ñu ko dàqal والحق أنك قد أتاك مبشرا خير الورى بالختم والكتمان waaw moo tax kon nag cër ci yaqiniyaat lay dellu waaye du dellu ci ay zanniyaat bu ñetteel bi moo di ni dëgg nanguwul ak mbaax ñu dox ko ci lu dul waxtoom gis nga mbon waxtu wu ko neexee jóg waaye mbaax yàlla dafa ñaan ku koy dox nanga ko dox ci waxtoom xam nga walaysati tawbatu lilladina yaamaluuna sayiat حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن moo tax mbaax bu mu mën a doon boo koy def xamal waxtu ba xamit koo ko war a waaw ba tax na yu mel noonu moom la kilifa gu tedd gi dëgg googu ëmb yooyu ba ñu ko xamee ba léegi yooyu ma leen tudd yépp amu ci benn bu mu ci jëflanteeg nit te yàlla lalu ko kon nag ñun duñu ko propagandal parce que itam am na ku nga xam ni yow ci sa bopp boo defee ni propagande moo koy jariñ booba xamuloo ki nga am kan la ñii mu seqal ba ñuy seq ak moom ñun ñëpp kenn fekkewu ko bu ko ñëpp bàyyi woon it mën naa des ak ñoom te du wéet ñëw gi mu ñëw Tiwaawan it lu mu fiy jël si wala mu koy xëccoo taxul njaboot yi rekk lay sagal moo tax mu ñëw fi waaye dara safu ko ci yiñ fi def yëpp dañ ko ko nëbb hélicoptère bi dama ko ko nëbb ba der dernière minute ndax bu ma ko ko waxoon mu lànk bëggul yu rëy kër ga loof mu ni bu leen fa laal dara lañu ñu fa bàyyi woon bàyyi leen ko noonu taalibe ñëw ci kër sëriñam bu paree delluwaat soxlawu ma leneen lu ci ne ñoo ko sàcc rek def ko waaye soxlawu ko pour ñi foog ni daraa ko fi indi bu doon léegi la koy am kon bu yóbbu bàyyi waaw waaw Babacar Si di dund te teewul li muy am mu am ko waaw kon nag loolu rekk la na ko nit ñi xamee noonu moo simple kon nag danaa jox sëriñ moo Mansour mu teg ci ay kàddoom li ñu koy yëgal rek mooy daje bu mel nii bu amee fa dëgg yàlla am na ay bokk yu ñu ci jàppale sa njabootu bopp bàcc jóg fa dëgg yàlla lu mu mën def na ko def na ko ci organisation ci matériel njaboot yi ñëw itam këram lu mu mën def na ko tabarakallah yow lañ koy bàyyeel yaa koy ñaanal yàlla sa njabootu bopp bi di mas mbeng lu mu man def na ko ndax moo ma wax ni ma man Serigne Cheikh rek laa am waaw ma keneen parce que mooy sama sëriñ ba tax na tabaarakallahu lu mu man moom it def na ko waxtaan na waxtaan yu am solo ndax yéene moom itam ñu bàyyi ko ak yow sa njabootu bopp itam ma paate dafa fekkoon mu dem Makka waaye itam joxe woon naa instruction pour que ñu taxaw gannaawam moom it la mu joxe woon yëpp def nañ ko tabaarakallahu yeneen njaboot yi ci des yépp nag di ay taalibe di ay boroom mi yéene ku ne loo mëne rekk def nga ko ci wàllu administration itam ña ca kaw ñi ñu am fii jox nañ leen ay instruction préfet bi fi ne lu mu war def mu rafet def na ko ci diggante autorisation yeeg dimbale njaboot yi ñoo am loko yi ñu wàcce gan yeeg jox instruction aussi commissaire de police bi moom itam ak yitteem mu ànd ak ñi mu nekkal ci Tivaouane waaye aussi waa GMI itam ñëw ak seen ndigalu kilifa jàpp jàppale leen ci liggéey bi tabarakallahu sunu mbokk gendarme yi nga xam ne rawatina ñi ñëw ci escorte bi jóge Dakar ba fii ñoom itam ku ne def na la mu mënee tabarakallahu ci wàllu Tiwaawan ci boppam itam municipalité bi xaaj Moustapha ñang dafa waxoon ñu wax la ni yaramam moo neexul waaye itam rek nee na am na lu nga xam ni jarul mu sori ca mu bàyyi la nga xam mu xam li mu lay wax rek nee na li li weesu de la xamul waaye li jëm ci kanam tabaarakallahu mu ngi koy dénk yàlla joxe na lu mu mënoon tabaarakallahu hôtel bi ñu defoon fii mu mettre ko ci disposition njaboot yi pour gan yi ñu dalal leen fa lu waa municipalité ba war a defe def nañ ko tabarakallahu mu mel ni itam wàcci waawoon ci seen bopp ñëpp génn nañ seeni kër gan ñi dale ko kon nag loolu yàqu moom ci ñoom yaa leen di ñaanal yàlla li ci des mooy njabootu bopp gi nga xam ni ñooy taxawul lii loolu yàqu moom ci ñoom ñëpp nag kenn ku ne ñu ñaanal ko sant ko tabaarakallahu kilifa yi moom ñu bàyyi leen ak suñ Pape Malick ak sunu mbokk maître ma dikk ka di lépp tabarakallahu tax waay ngir yàlla ak yow ñu jox sëriñ Pape Malick ah sëriñ Mansour mu sànni ci ay kàddoom ñu jox sëriñ Pape Malick mu ubbi santal la ñi nga bëgg ñu sant leen ñu jox la tabarakallahu nga baal ñu guddeel gi ndax danga ma ñaanoon ni na ngeen résumé ndax temps bi dafa xat dañ baal ñu ko àq wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillah walhamdu washukru lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir wasalaatu wasalaamu ala man sharafahu llahu binnubuwati alaxira سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صاحب الفضيلة العلام وحكيم هذا الزمان السيد الشيخ أحمد تيجان سي أيها الإخوة المؤمنون نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سرين بي نجي دلوتي ci yooru yooru tey bi di la ñaan nga may nu nu nuyu la ci turu njaboot yi fi teew yépp góor ak jigéen mag ak ndaw fa tabaarakallaahu ñi fi teew ak ñi bëggoon a ñëw te mënuñoo ñëw mu mel ni li teew ci jotaay bi sax mastul azakay li nga am fii ci réew mi ñu ñëw fii ngir farata ba ca jiitu moo di xamal la ni la yaanu doy yaanu doy ci biir yaanu doy ci biti yaanu doy ci àdduna yaanu doy ci àllaaxira ma wax ko nag ci turu njaboot yi yépp lu tax nga doylu na ngeen wax tabaarkàlla waaw ca jiitu mooy sa jikko tabaarakallaahu masha ba ca topp moo di sa xam-xam leen wax tabaarkàlla fa tabaarakallaahu masha allah ba ca topp mooy sa ngor fa tabaarakallaahu macha allah ba ca topp mooy sa njàmbaar waaw wilaaya gi nag yeggunu ci moo tax nit soo ko amee muy sa kilifa te loo ko wax ci boppam xam na ci boppam lu ko ëpp dangay wax sa yéene rekk la ca des nga bàyyi ko mu mottalil ko boppam dañuy dund ci jamono bu lëndëm boo xam ni ñi amul xel sax dem nañu tafu ci seen gannaaw kilifa te ñun ay boroomi xel lañu kon nag ñu ngi ñaan jamono mu jéggal lu te may nu ñu tafu ci sa gannaaw parce kilifa gu baaxkat kat yombul waaw kilifa gu baax yombul ndax koo xam ni la mu lay sédd la ca gën a tuuti ku ko séddoon jamono jamono nit dootul dem safara te benn jamono bu mu mës a wax ak yow wala mu jëflanteeg yow ba war la ni la maay sa kilifa kilifa gu mel noonu yombul te boo dee woo sa njaboot sang nga leen di wooye waaw gàccoo kaala sol mbubb waaraate yomb na mais ruux feebar nga xam ko bi muy laata jóg pour wutal si la nga faj ko loolu boroom la am waaw wax bu nekk danga koy wax rekk ni mu doone waaw te dafa am lu ngeen di tudde ak zaman wal makaan muy li ngeen di wax temps ak espace yataxayaraan wa yansarifaan wa yatabaddalaan kama tataxayar وتنصرف وتتبدل الفصول الأربعة waaw temps ak espace moom moom soppeeku waaw mooy waral mbubb soo ko amee ba mu sàppi la te doyaloo ci nga dem jox ko suubkat bi mu defal la ko beneen couleur loolu nit ku ko nanguwul ci jamono boo gëm nga yàlla ñu ni la waxuloo dëkk waaw yàlla rekk nag moo di alxaqiqata al aaliya wal xaqiqata saamiya allati laa tusaytiru wala tastawli alayha altagayuraatu alzamaniya walmakaaniya waaw bu ñu dee wax espace ak temps nag nit moo tax mi yàlla moom jël na espace ak temps waaw mu mel ni kon suñu demee ba jamono soppeeku espace soppeeku dafa am ku koy njëkka a yëg loolu fa tabaarakallaahu moom lay cëram tey waaw su ko defee nag raas benn la benn raas moo am nit ku weex nit ku ñuul nit ku xonq nit ku jaune la race humaine moo am waaw ci biir race humaine nag ki ci yàlla amal affaire mooy ki mu yaral boppam waaw ndax ki nangoo ki nanguwul yépp moo ko bind ci loxoom bu tedd bi ki jub ak ki dëng yépp yàllaa ko bind ci loxoom bu tedd bi mais ñooñu ñépp li mu leen di jaarale jaarale ci loxoom ka mu ci amal affaire mooy ki ko gëm wóolu ko nangu ko mu yaral la boppam kon su amee trait d'union entre nit ak yàlla yar rek lay mën a doon du doon lu de su ko defee ci biir cadre boobu dafa am lu nu bëggoon rekk nga may nu ko ñu tudde ko léeb parce que itam ci wàllu désinformation nit ñi dem nañu ba jël ko def ko muy arme bu redoutable ñu di ko véhiculer pour ku ñu bëgg a gaañ ñu gaañ la ci ba ci grande puissance yi waaw état bu ñu bëgg a déstabiliser ci désinformation lañ lay jaar jaar ko ci sa intérêt politique ak sa intérêt économique su ñu ko jàppoo bala ñuy dem weer rek ñu déstabiliser la wante nag ñi koy def suñu demee ba defe ni mën nañu déstabiliser këru nitu yàlla yi ci wàllu désinformation booba seen xam-xam dafa guddul mais këru nitu yàlla kenn mënu koo déstabiliser ci désinformation waaw parce que wax ji dafa bare waaw Mansour ak Moustapha jubawuñu ku ko wax rek sa ku ko wax rek sa yéene nga wax waaw ndax nun am nañu fayda ak yar bu toll ni ñu demoon ba ci discussion sax ñu wute bala ko kilifa yëg ñu defaral ko sunu bopp parce que xam nañu li ñu bëgg ba noppi kon nag kër gi dafa am nu mu tëdd mooy siyaasa kër gi bi sëriñ baabakat di laata nelaw la ko teg ci loxoom waaw waaw woo njabootam yépp ba ñu ñëw mu ni leen gouverneur Lami ñëw na fi waxtaan naa ak moom ak Serigne Cheikh léegi siyaasa kër gi teg naa ko ci loxo Serigne Cheikh parce que man Babacar dama weranteeg moom ñetti yoon mu yey ma kon nag njaboot yi yéen ñëpp topp leen ci gannaawam loola nag ñoo ca des waaw suñu baay bu baax bii di wéy jur ci ñun sëñ Pape Malick taxaw ci suñu kanam fa tabaarakallaahu yéen xale yi man maay seen mag waaw waaw wante sañuma leen a wan cëru mag ndax kii moo tax yéen ñëpp sama doomi sëriñ ngeen waaw mu mel ni itam nangu ngeen ko moo tax mu noppal ma su ma neexee xëy fii dem tukki dox sama soxla ba mu sotti ma ñëw su ngeen nanguwul woon ni maay seen mag rek duma ko man waaw kon nag bëccëgu ziyaar la moom moo ñëw pour ziyaare ci ñi mu am waaw ci xadara kële ak kële njabootam yépp topp ci kawam waaw loolu nag yaakaar la waaw yàlla bu yàlla tax yaakaar fa tabaarakallaahu waaw lu nu war a wax bare na waaye dañu laaj ñaan rek nga ñaanalal nu Seyd Muhammadul Mustafa waaw ngeen may may itam ma def motion spéciale parce que tabaarakallaahu organisation bi niru na borom waaw waaw nañu ko gën améliorer rek parce que yàlla sax mën na lépp mais dafay améliorer waaw te it xam na lépp mais dafay jàng yàlla laa wax xam na lépp mais ci jàng la dëkk wa ma jaalna alqiblata allati kunta alayha illa li naalama man la waaw moo yonent bi aw ma soxla ci nit ñi jul julli jublu penk wala ñu jublu sow man fu jublu moo yem ci man waaw waaye soo gisee ma tànn penku ni ku yaakaar ku ma yaakaar te wóolu yonent bi del jublu penku xam ña nga xam ni seen ànd ak yow dëgg la ci ñoom ak ñamu dul dëgg ci moom waaw te ku ne xam na ni yàlla xam-xamam amul ab waaw fa tabaarakallah su ko defee nag ñu bañ yàkkamti te yàlla fàttewul dara wala taxsabanna allaha muxlifa waadihi rusulahu waaw ak ba ca des wala taxsabanna allaha gaafilan amma yaamalu zaalimuun waaw innama yuaxiruhum nag li yow waaw bu bëccëg boo ñëwee nag moom mooy nekk maître de la situation waaw fa tabarakallah te bi ci nag imaan waaw imaan yàlla charte la ko wutal ngëm waaw mooy alladina amanu walam yulbisu imaanahum bi zulm gëm nga ba noppi waaye fexeel nag ba ci diggante gëm gi ak fi ngay dem bàmmeel bu fi tooñ waaw mu mel ni loolu nag yombul waaw su ko defee nag tey benn ndono moo fi am waaw bu ñu mën a séddale ñaar benn bi bosam la mooy baatu shahid bi bi ci def suñu bos la muy baatu shuhada waaw wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan waaw li takunu shuhadaa ala nnaas wa yakuna arrasulu alaykum shahida ñun nag gisuñu yonent bi xamuñu ko yow la ñu gis yow la ñu xam kon nekkal témoin bi ñu repéré ci yow ñun ñu nekk témoin yi ngeen repéré ci ñun laneen mënul nekk fa tabaarakallaa dund nag lépp bëre la waaw bëre diggante neen ak dëgg waaw bëre diggante aada ak xaqiqa ku foog ni neen mën na daan dëgg te àlluwa guddul waaw ku foog ni aada mën na daan xaqiqa sa aada guddul parce bal naqdifu bi ala albatil fa yadmaguhu fa ida waaw ba ca des mooy dañu daan wax yéefar yi bi ñu leen fekkee ñuy jàmm seen xërëm yi ñu ni leen yéen yéen a dox yatt bant ba pare di ko jàmm ñu ni inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun waaw kooku nag côté aada la mais du fulla waaw mu mel ni nag ci jamono moom lañu yàlla booleel waaw waaw te lu mu d'accordul ci réew mi bu ñu doon mobiliser les grandes puissances yépp pour ñu cautionner ko du tax Sénégal dem fenn waaw waaw juróomi at yi ñu weesu wane na ko fexe bu ne américains yi def nañ ko français yi def nañ ko lu nekk def nañu ko ñoom autorité yi fi nekk pour sortir le Sénégal du gouffre te mënuñ ci dal waaw chaque jour la situation mu ngi empiré wu dëpp plus en kenn xamatul fan la réew mi jëm waaw kon nag ñi war a nekk arbitre suñ leen bëggee def ay spectateur booba yëf yi coow lay bari ne dara du baax waaw ñu xamal leen ko tey di ci def nag fa tabarakallahu moo di cofeel dafa metti cofeel dafa metti parce que da ko dul mën a nëbb waaw te comme xamaguloo ki nga sopp di jot ci moom wala déet te cofeel gi mënul nëbb soo ko génnee ba noppi te jotula ci moom xoolal li mu lay coûté waaw ata ngeen di jàng mag ñépp di way cofeel waaw amin tazakuri jiranin bi di salamin mazajta damaan jara min muqlatin bidami waaw am habbati riixu min tilqaai kaadimatin wa awmada albarqu fi dalmaai min idami ayaxsabu sabbu anna alxubba munkatimun ma bayna munsajimin minhu wa muttaribin lawla alhawa lam turiq daman ala talalin wala ariqta li dikri albaani walalami waaw fa tabaarakallah ci seen eh, burd waaw su ko defee nag naaj na te it nun nit ñi am soxla ci li ñoo wax moom mii la ñu am soxla ci li moo wax ngeen ànd ak dal ñu bàyyi rajo bi noonu baax na waaye ñëpp déglu bu kenn yokk bu kenn def dara ku mën a jël note nga dégg jël note ku mën a enregistré nga enregistré ku mën a euh, tabarkalla tabarkalla dégloo sa nopp nga déglu ak sa nopp waaw yëf yi bu nu demoon sax baax na ba noppi waaw bi ci des nag mooy ñu ñaanal la ñaanu xale bu tuuti boo may tàngal yàlla na nga dund ba dund sàppi la nga daagu dem aljanna waaw waaw fa tabaarakallah waaw waaw li ñoo tëje nag recommandation la parce que dañu nekk ci toolu xaqiqa di liggéey toolu xaqiqa ak toolu gàncax li leen wuutale mooy gàncax bi dañuy tudd tool bi toolu lan la toolu gerte bi la loo gis lu dul gerte rek sañ nga ko dagg toolu dugub la loo gis lu dul dugub rek sañ nga ko dagg mais bu dee toolu xaqiqa nag du ñoo wax polyculture moom la ñuy utiliser day bari gàncax yu bokkul te yépp la ñu soxla am na boo xam ni soo ko daggul yàq am na boo xam ni soo ko daggee yàq te kenn du la ko wax yaay def sa yitte ak sa xàmmee ba xamal ko sa bopp su sa yitte yeggul foofu nag nga jafandu bu baax ci jëwriñ bu baax jëwriñ nag mooy taxawu tool wante moomul tool waaw jëwriñ mooy taxawu tool wante jëwrin moomul tool te li ko wuutaleeg surga mooy surga bu dee liggéey ci tool xelam yépp mu ngi ci bu njariñal tool ñëwee ñu jox ko wàllam jëwrin nag li mu bëgg mooy bu tool jeexee ñu ni ko jaajëf kon yamuñu cër suñu demee nag ba jamono yàqu ñu bëgg surga taxaw taxawaayu jëwrin su ko gàttu xelu nit gi nangoo yàlla moom subhanahu wa taala du ko nangu waaw te yàlla moo ko tax di sonn waaw lii ngeen fi gis lépp bu fekkoonte ni mooy yitteem kon ba sëriñ Babacar wane gannaaw day toog ci waawan di dajale nit ñi di créer daayira di laaj addiya mais amu ci soxla ku ko mës a indil addiya jox na la lu téye sa kër at kon nag kooku àddiya taxu koo jóg démb dañu ànd ak moom ci yoon wi rek eh, ñu dem ba bëgg jàng li ñu li li kuy dugg ci oto walla li kuy dugg ci daaba jàng suñu xel dem ci moom ñu xam ni du teggin waaw du teggin waaw dëkk yi bu ñu tiim mu ni ñu dëkk yi de jar na bàyyi xel dëkk bu ñu tiim mu ni dëkk yi defaruñu ko de jar na bàyyi xel kon nag les responsables municipaux nañu tenir compte ci kàddu kooku waaw li ci def nag mooy yàlla bu yaakaar tas waaw njaboot yi fi nekk yépp yow la ñu yaakaar waaw dañu ko ñaan nag parce que yaakaar doo ku du tere ñaan waaw bi ci def mooy li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal dugal ñu ñun njaboot bi ci biir ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ñu commencé ko ci bismillahi rahmani rahim jeexale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin parce que yàlla mën na boppam ba noppi sama wax ni fa amma zabadu fa yadhabu jufaan wa amma ma yanfau nnaasa fa yamkusu fi l ard wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu assalaamu aleykum sëriñ bi noo ngi lay nuyu noo ngi lay ziyaara noo ngi lay massawu coono noo ngi lay baalu àq ñi ngi ñaanit yal na yàlla mottali yéene Cheikhil Khalifa ci yow yow it yal na yàlla mottali sa yéene ci Cheikhil xalifa yal na yàlla mottali yéene way jur yi ak yéene mag ñi ci yow yal na yàlla sàmmal la sa njaboot ak ku leen ko yéene ñi ngi dénkaaniwaat suñu bopp ñi ngi dénkaaniwaat suñu pas-pas ñi ngi feddale suñu yaakaar ci yow di nuyu fa tabaarakallaahu mboolem ku fi teew moo xam ngay kilifa walla ngay njaboot waaye loo gis dafa am ku ko moom nuyoo bi ke nu cay jiital moo di sunu wayjuru bopp Sëriñ Saliou Mbàkke ndax fa tabarakallahu dafa jël ay responsabilitéem ba mu jeex pour won nu ni mat nanu waajur te dananu uuf ñu nit ñu jël suñuy responsabilité ba mu jeex wan ko ni nangu nanu mu nekk sunu waajur lu ñu nangu